wajalilaayi maskani tuubaabaat misrasmi abijaayi yi asalaamaaleykum wa mbokk yi dañuy delluwaat di sant Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul dañu doon ñaan nawet bu nangu te barkeel mbokk yi xam ngeen ne dëgmal nañ màggal waaye bëri na ay bokki taalibe yoo xam ne nii ñu ngi ci ay jafe-jafe ndax lan ndox mi lañu dëkkaaleel ñenn ñi génn nañ seen kër uti fañ nekk Touba Ca Kanam a ngi xalaat ay pexe ndax kat jàpp na ne ñooñu dañ leen a war a wàllu waaye mbokk yi am na kenn ci njabootu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul faw ñu tudd ko wane ay jëfam muy Serigne Isaaxa moom Serigne Moussa mu Serigne Bassirou Serigne Isaaxa naka jekk ba nawet bi tàmbaleeg léegi bokki taalibe yi nekk ci ay jafe-jafe walay bu ñu gestoo gis nañ ko wala ñu gis jëfam ndax kat bu weesoo jaayante gi nga xam ne jaayante na ko ci Touba ci kanam joxe ci juróomi million ñu ne déet na waay moo sëñ Abibu gis ñuy joxe ciment mu joxe téeméeri ton ndax xam ngeen ne dafa jël ay camion vidange fay leen ñuy dem di génne ndox mi ci biir kër yi yemu ca barki démb ñaari téeméeri voyage la fay camion vidange yi ngir lan ñu dimbale mbokki taalibe yi nga xam ne dañoo nekk ci biir ndox mi tey nag mu indi fukki moto pomp ak juróom yu bees tàq moom sëriñ Isaaxa moom sëriñ Moussa basiru fukki moto pompe ak juróom la indi 15 moto pompe yu bees tàq mu ngi nii kooku nag jàpp naa ne sëñ jar naa kañ jar naa wane te it nag ñi ko mën a rey ci dëkk bi bëri na de looloo tax sëriñ bi ne jëf ju ji bëggul ku ko wax bëggul ko ko wane waaye Touba ca kanam nag moom laaj lu ñu mën di ko def fu ñu xam la faw danañ ko sant moo tax sëñ abi bu ñëw taxaw ànd ak sëriñ Mamor ànd ak mboolem kilifay Touba ca kanam kon ñu jox kàddu gi sëriñ mamoor mi nga xam ne moo jiite Touba ca kanam. di wax ne ba léegi ñoo ngi ci waajtaayu màggal gi jaayante boobu sëñ bi wootee woon tam doonu doon jubluwaay bi lépp loo xam ne moo na tëgg ci ay gàllankoor rek ñu wàññi ko bu baax a baax te jii ñu ñëwaat di seere jëf ju rëy. joo xam sëñ Isaaxa moom Moussa moom sëriñ Bachiru jëfati na ko ñu wax ne bii du bu njëkk ni ko sëñ Cheikh Amar waxee bañ tàmm di liggéey ba léegi ñu nag moom ñoo ko ànd li ñu ko limee ne waaye tey moom li tax ñu ñëw fi taxaw mooy li ngeen gis ci ginnaaw ay pompe la yoo xam ne moo ko fi yónnee moto pompe lu toll ci fukk ak juróom tey du ci yam ndax euh, lépp loo xam ne moo ko war a accompagner ba lépp mën a matal liggéey bi boole na ko ci kon ñoo leen koy wax di leen ko seereel tey di ko def ab soññ ngir mbokki jullit yëpp tàmbale ko ci mën ñi mel ne man ñu xam ne daal liggéey bi moom liggéey Serigne Touba la dëkk bii dëkk Serigne Touba la te nag bëri na ay mbokki taalibe yoo xam ne ñu ci jafe-jafe yu métti métti yu bàyyee ko ci ndox mu bëri mi kon daal ñoo ngi wax rek ne ñoo ngi koy ñaanal bu baax a baax tey day di di di sàkkul ñaanal ko moom sax bëggutoon ko wax li mu jëf ndax bi ñu ko dañuy dañ koy rese dañ koy resevoir ñëwal teewee ko dafa joxe ne man sax naa ko teewal kon maa ngi koy wax ci turam ne moom daal nee na sëñ Tuubaa rek la ci liggéeyal moom rek moom rek la ci xool kon daal lépp lu ci def ne wóor na ba mu ko defee la la ko woon ginnaaw kon yàlla na ko yàlla def mu gën ko man eh, yàlla def eh, nit ñi roy ci ba gàllankoor yi ñu dund ñëpp ñu mën cee génn sëñ bi sëñ bi tamit ñu ngi koy sant bu baax a baax ndax eh, koo gis na taxawaay bu baax bi muy taxaw ci yu mel nii loolu sax moo tax moom xalaatu xool nu ñu dimbalee ñi nga xam ne ñu ngi ci biir ndox mi te mu amuñu fenn fuñ dund fu dul foofa ñu jàppale te bokk taalibe yi woo xam nañ ne Sëriñ Tuubaa rek moo la ñor ak waa dëkk bi ñu fexe nekk ñu génne leen fa ñu wut fuñ nekkandi ba ndox moon faa ne kon mi ngi ci woo ñëpp képp ko xam ne daal sëñ bi bi ñor na la te suñu borom ma man loola la ciy woo ñu ngi ciy woo mbokk jullit yëpp di ko def bi ak ndigalul ñi nga xam ne ñoom sëriñ bi di liggéeyloo rek li warloon jotaay bi rek mooy sëñ si na lépp waaye daal sëñ Isaax moom ñu ngi koy santaat di ko gërëmaat ak pas-pasam ci liggéey Serigne Touba di ko ci ñaanal di ko fas yéene nag roy ci di ñaan ñëpp roy ci ñu ànd ak sëriñ bi nga xam ne moom mooy suñu kanam ne ci suñu ginnaaw wax dëgg yàlla lépp lu mu woote ci aw yiw moo cee jiitu kon yàlla fi yàlla yàggal te yàlla may ko ngërëmu Serigne Touba ñëpp defal nu ko ñoo ngi ñëpp di ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu wajalilahi maskani